ak euh, tonton en grand bi donc vraiment mu ñëw tey seet si xaritama muy Omar Pène ñu ngi nii ak tonton Youssou Ndour tey lan nga yëg waaw li ma yëg mooy kontantement laa àndal bég gis Omar mu ñëw bégal nit ñi ñun ñëpp ñu bàyyi li ñu def ñëw taxaw ko ndax Omar sunu nattangoo la boo xam ne kóllëre bi dafa yàgg mu nag def lu bare ci musique sénégalaise ba nga xamee ne que bu xewlee léppay taxaw ñëpp ñëw wuy si ko lii gis nga nit ñaa ngi bég Omar dellu sina yalla yàlla nañu ko yàlla sàmmal. Euh, ñu gis ngeen def tamit ben duo muy ëllëg si biir. Euh, lu ngay rappeler waaw xamna yeen lay rappeler xam ça c'est historique. Euh, classique de la musique sénégalaise moment bi nga xamé ni que comme on disait il y avait un peu de concurrence entre Super Étoile Super Diamono. on avait décidé de faire ëllëg et ça marque les esprits et je suis content bi ma bi ko démarré dafa melni morceau bi demb la génn ñepp woyandoo ko lolu moy wané ne que and rek mo wóor

yari नाडी yari नाडी या अब yari नाडी ओने ओने त्रे त्रे बोलता हूँ ओके nous avons notre ami Suleiman Guénia. Ya. Suleiman, c'est un mélomane. Absolument. Suleiman, c'est un mélomane. Nous avons notre ami Sri Bakek. Sri Bakek, c'est un mélomane. Nous avons notre ami Youssou Touré. Youssou Touré, je ne sais pas s'il est un ménomane, mais je sais que c'est quelqu'un branché par les années Diamono. Ça, c'est sûr. Inspiré par les années Diamono. Nous avons notre ami Ibrahim Ndoye aussi. Musique, c'est le conseiller spécial du président de la République. Ibrahim Ndoye, musique le l'a y a aussi suivre super une super étoile di suivre musique sénégalaise ba qui yom ko il motax tax day dégg musique chaque jour dañ ko koy wax mu koy dégg. nous avons aussi euh, de nos amis étudiants. ah mais respect les étudiants qui boo nous ko quand rek xam si ngeen wara alors. Donc euh, voilà, je crois que c'est ça le Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes réunis. Euh,